salaamaaleykum suñu mbokku internet yi tey ñu ngi leen di nuyu fii ci TMS TV tey ñu ngi ñëw jàmmalaay en face station HLM Grand Médine ñu fekk fi benn choc bu metti benn Mercedes bu def choc deux ñoo si nekkoon ñu ngi dugg ci biir dinañ leen indi détails yi ci biir xibaar yi merci beaucoup. yow lañ gis ne yow yaa fekkee quelques parties si si choc bi am fii nii lan nga ñu si mën a wax. Euh, accident bi mi ngi am ku lay ku lay deux heures yooyu quoi bon maa ngi toog fii nii jàkkaarloo kii bi quoi waa ji li mu doon daw moo doon bëri mi ngi mi ngi doon daqanteeg beneen oto quoi léegi bi mu tollee ba fi ci bëreel ba xam naa si la ko oto boobu wàccee nii léegi si la si la si la defee nii quoi waaw. ñaata personne la ñu woon ci oto bi. ñaari personne la ñu woon. waaw. am na ay non mais kenn gi rek moo am gaañu gaañu quoi ci loxo bi nii quoi. salaamaaleykum papa ñu ngi salaam man maa leen di fay. papa dañ la fekk tey biir station HLM Grand Médine ñu fekk fi benn choc mais ñu ngi la gis ngay ñaxtu lan nga bëggoon sànni sa kàddu si. parce que man dama jóge Espoir ñëw fekk chaîne bi accident bi te accident yi yàgg nañ fi bari te diggante station HLM Grand Médine bi ak jàmmalaay xale yi dañuy traversé di dem géej di football suñuy doom yi ak ñeneen ak ñeneen. mais ñoom tam bu ñuy daw bu ñuy wàcc pont bi ñu xam ne que fii population bi am na ñu fi dëkk kon dañu nar a daw nànk ba nga xam ne fu ñu passé foo xam ne amul kër mun nañu daw lu mu leen neexee mais fii c'est très dangereux ceroog yàgg na fii benn ñag lañ fi benn ñag lañ fi mbëkk gañ ko gañ bu métti sax fii amoon nañu kuñ fi mbëkkoon mu dee fi tam ñun bu ñu sañoon nag nañu wax autorité yi na nañu jog wax chauffeur yi nañu dawal nag mbaa ñu def fi ay dóor daan yoo xam ne day empêcher oto yi mun a daw doole pour bu ko defee ñëpp nekk en sécurité parce que woor be weeru weeru koor ngoon oto bi tey alhamdulilah yàlla def na si jàmm bakana mënoon na si xaj mbaa bu yemoon si nit kon leneen la ñuy waxatin kenn ki dara jot ko non safar bi non joro jotu ko noonu non non blessure mbaa bariwul noonu non non noonu si loxo bi noonu rek la kii nii quoi nit yi nañu ànd ak seen sago di daw nànk loolu moo gën a rafet ñëpp nekk si jàmm waajur yi nekk si jàmm njaboot bi nekk si jàmm ñu ngi sant yàlla di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yal na yàlla def jàmm si adduna bi yëpp yàlla may ñu wér taw feex jërëjëf mais est-ce que tamit euh, comme par exemple yi ngi nuy wax ne fii dafa am manque de sécurité ah. yaa ngi wax léegi ne xale yi dañuy daw jéggi tali et mais est-ce que tamit parents yi tamit doo leen sànni dara ñu téye comme fii wóorul ñu téye seen doom ba keroog ñuy gis leneen lu adéquat ci kaw tali bi aussi tamit dëgg la bon ñu man man ku mel ni man man maa ngi tëj samay doom duñu jënn ñi mag yi mais ñi bari seen doom yi ñu ngiy jën am na ñoo xam ne dañuy jóge si yeneen quartier yi di wàcc si ñëw jéej boo seetee da ngay seet xoolal mbedd bi xale yi tuuti tuuti ñu ngi dawal ay velo ay xale yi ndaw ñu ngi dawal vélo parents yi tam ñu ngi lii xam ne lii c'est pas normal bàyyi sa doom jëndal ko vélo ne ko demal mooy ça veut demal dee si demal dee si tali bi c'est pas normal parents yi am nañ si part de responsabilité yaay yi am nañ si part de responsabilité seen mag yi góor yi am nañ si par de responsabilité tout le monde parce que jamono bu njëkk ba dafa amoon yar dangay ngay gis doomu jàmbur mu def lu dul noonu nga téye ko dóor ko teg ko si yoon mais léegi boo laalee doomu jàmbur ñu ne essai yaa koy dundal mbaa ñu yóbbu la police la am problème mbaa la laal ko mu dee ñu ne la rey na nit. léegi yow li nga gis fii nii ci choc beeg loolu lépp ban message ngay jàllale. waaw message muy jàngale mooy xanaa ñu daw ndànk rek parce que tali bi nii moom tamit bi mu commencé ba léegi nii rek chaque jour ñu ne soog chaque jour ñu ne soog quoi wala ñu def fi benn dóor daan sax au moins quoi waaw. loolu waaw parce que gars yi ñu ngi wax ne fii li muy am choc dafa bari yow yaa ngi nekk témoin ci choc yooyu chaque jour wala. waaw fekke naa fi ñaar nag quoi fekk naa fi ñaar naa fi ñaar benn benn bi ma fekk fii nii benn gars mu doon jéggi fii yor scooter mu jóge woon côté bii quoi yor scooter nii tamit boobu tamit si laa tombé quoi fekk naa ko. merci beaucoup. kon population bi nit yi dañ si nar a réfléchir bu baax doom doom ñëpp la kenn xamul xale ko muy njëriñ suba xale boo ngay gis si kaw tali bi suba mun na dem ba nekk président jiite réew mi. kon ñun si xale yi ñooy suñu yaakaar ëllëg ñun mag yi bëgg nañu dem ba suñu doole bu ñu demee bay def fi loo xam ne day sax ëllëg suñu njaboot yi jël ko dem ak moom loo xam ne yar bu baax éducation bu baax éducation de base boo ko amee rek ji am na yëpp yar mooy yëpp mais boo amul éducation de base fooy dem am sa doom na bàyyi ko comme bay ma mais c'est pas normal nañu xoolaat bu baax lu ñuy suñu jëfin suñu maam yi liggéey nañ fi liggéey boo xam ne tey bu ñu leen fëggoon tey si seen kaw bàmmeel ñu leen jóg leen xool seen Sénégal bi nu mu mel mais dañuy tiit lu ñu defar yëpp lu baax bi ñu ngi koy bëgg a yàq nañu delloo si xol yi dellu si xel yi xool maam lu mu fi béy ba bàyyi fi mu sax fi kenn mënu ko yàq ku ko bëgg a yàq da ngay sonal sa bopp rek d'accord jërëjëf papa kon bu ñu la déggee bu baax dañuy woo tamit parents yi parce que état yi lu ñuy mën di def tamit parents yi ñoo leen mën a dooleel parce que état mënul dëkk tamit di nekk fépp di lijjanti lépp état lu muy def tamit day fekk famille yi tamit ñu ngi siy jàpp état yi nit ñi ñoo leen mën a jàppale kon ñu ngi ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa témoignage macha allah di di la gërëm bu baax a baax. état bi si boppam état bi si boppam ñun ñooy suñu état bopp tey état ne peut pas satisfaire population sénégalais yi ñoom ñoo nar a satisfaire seen bopp dellu si maam yar bu mu daan yar ñu yaree ko suñuy njaboot mais su nekkee lii la rek no vraiment je regrette beaucoup et maa leen di gërëm di leen di sant yéen tam yal na leen yàlla fay seen taxawaay rafet na je vous remercie et je remercie tout le Sénégal merci beaucoup